5 février 2022 5 février 2023 Sénégal di fàttaliku ci bésu tey terreau coupe d'Afrique des nations bi équipe nationale de football de ci au Cameroun ginnaaw bi mu équipe Algérie ci tiro bi jàlloro bi doonoon guléet ci de football réew mi de na bésu mbégte bu kenn n'a naatable waral ay bakkan wad, étudiant ak policier jubiléando président de la République, Maïti Tourou, Askano Sénégal, 50 millions de terrains, terrain, 200 mètres à 500 mètres carrés, Zouri Bouchinek, Akseni Encadreur. Gatje lama, Dom Dien Bédier, Andy Koubi, Djerangen Djef, Begna Itam, Mbokui, Nga Khamentene, Sénégal, Yepo Fidadier. Dakhli, Amon Koudier, amul gouvernement amul opposition peuple bi mom mom ndam li peuple bi ñoy taral lion yi li moo waral bi may ñëw ci suba la woote lii de l'intérieur ne ko fexe leen ba jot opposition bi ngeen ne leen président bëgg na ngeen ñëw yéen it fekkee bi ndax ci ngeen bok li ma bëggal équipe bi mom ngeen bëggal équipe bi te boo leen fi ma nek gëm naa ne di ngeen ko def pour ndam li ñëw kon yéen ñu sant leen bu baax ndax lii mooy Sénégal dafay am jamono yoo xam ne mbiru kujjee dañ koy teg fële bu feete ba pare nga xam ne moo ñu dajale dañu dajale mu solo mooy Sénégal loolu lañ gis tey ma kontaan ci lool loolu nag gone yi ñooñu ko may muy lion yi ndax seen taxaway seen njàmbaar seen fit seen jom parce que nag coupe bi ku amul jom doo ko andi sa réew jamais ku amul fit ku reyantewul doo ko indi lii moo tax ba ma leen di jox drapeau bi ma ne xam naa ne mën ngeen football loolu kay kenn du ko werante ci xam naa ne yéenay première équipe de l' Afrique kooku FIFA moo ko wax waaye doyul li des mooy arne bi ak xeex bi nga xam ne mooy tax nga def ko ni ngeen ko defee ci match yi ngeen def yëpp surtout à partir des quarts de finale de demi-finale et hier de la finale face à l'Égypte vous avez dominé tous les matchs gàcce Ngalama gaynde njaay mbara wàcc dégg nañu ci turu peuple bi yëpp maa ngi leen di jox rendez-vous ëllëg ci yàlla àndee ci buntu palais de la république yeen ak seeni njaboot bu famille ngir Sénégal tatagal leen teral leen ndax ndam li ngeen ñu andil fierté bi ngeen ñu may ba tax na tey Sénégal ci àdduna bi yëpp moom la ñuy wax parce que moo xew si jamono kon jërë ngeen jëf yéen Gaynde Njaay jëf Aliou Cissé yow mi nga xam ne yaa leen tàggat yaag sa équipe jëf fédération sénégalaise de football maître Augustin Senghor ak ay nitam waaye nag jërëjëf Matar Ba yooyu tombé mooy waral ay gaz ak sa équipe jërëjëf gouvernement bu Sénégal ak peuple bu Sénégal jërë ngeen jëf. li mu doonoon xaar ay ati at mel ni bunt bu mujjee ubbeeku ba tax équipe national bi soccer ak lion locaux yi indi yeneen raay ci réew mu teranga ñu ñaan nag yàlla mu xeeb ñu te dool lii